D'accord. C'est aujourd'hui que tu regrettes parce que tu as des problèmes de conscience. Tu fais partie des Sénégalais qui ont insisté. Mais aujourd'hui, aujourd'hui c'est oh Omar Faye. Bu démb doon tey ñu bëri nañ ko D'accord. Omar. Merci, merci. Foofu moom c'est très mal placé. S'il vous plaît. Na dégloonte waay. Yow suul booy wax Abdoulaye Wade ngay wax. Waaw d'accord. Léegi bu ñu génnee ñu yeggale ko. Quand même. <laughs> alors. Euh, ah, lui, ah, na. c'est bon on avance. non waaw li may li ma li may wax rek mooy en fait ñu justifier lii ñuy def tey par le passé parce que yaakaar naa ne bu nekkul woon euh, yu bon yu fi amoon. Mhm. du ñuy indi élection bay xalaat alternance. donc Macky Sall li ñu ko accepter Abdoulaye Wade au moins sax. Euh, vingt et un milliards la jëndoon avion te jëndoon avion bu mees avion bi mu jëndoon yaakaar naa président France ñoo ko doon utiliser mais ki nga xamante ne dafa jël soixante milliards def ko ci avion te beneen mbir bi sax Abdoulaye Wade daañu la ne xaalis bi ngi circulé dañuy naan baax naag baaxul mais mi ngi doon circulé voyage da doon dem di ñëw naar yi ñu ngi doon kii mais Macky Sall man mosuma ko gis mu dem ci dëkku naar yi Macky Sall voyage yëpp lan la bu demee Turquie la mhm. signé fa ay contrat yoo xamante ni saa bu ñëwee fii indaale seen banque boobu lu mu tudd exit banque xaw ma bu ñu fi ñëwee ñu jox leen stade boo xamante ne waroon nañu ko defaree ci cinquante milliards jox leen ko cent cinquante six milliards. dénk leen aéroport ak yeneen ak yeneen ak yeneen. voilà donc je crois vraiment. Mhm. Abdoulaye Wade moom kenn mënu ko xalaat comparé ak Macky Sall ndax dallu Abdoulaye Wade sax moo gën bu Macky Euh, oh mm, <laughs> Dame alors Dame su ñuy ñëwaat ci ci ci par rapport toujours à cet avion euh, Omar Faye bàyyi li ngay def su ñuy ñëw toujours par rapport à cet avion euh, yow déjà dépense de prestige bi teg nga ko de côté mais ci loolu danga ne dafa am leneen lu ko lal lan moo ko lal exactement. waaw sénégalais yi dañ dul taxaw seetlu xam nga ñoom ñoo wax ni avion bi ñu ngi ko contracté woon en deux mille dix di ko fay par par par par tranche. Mhm. ba heure bii te daan leen ko daan la dernière tranche ñu ngi ko war a fay en juillet. Mhm. du loolu la wax kon juillet ñëwagul. Mhm. waa léegi ba mu dooree ba léegi xam nga waxuñ ci mu ñu ne tekk léegi Sénégal yi duñ posé wu question loo doon fay deux ans ngi nii waxoo ci lan moo xew Sénégal bañ toog ba càgg rek ñu ne ko pëy pour andi coow. seen coow boo jugee ma rek may ma rek ma ñëw may ma rek. c'est important dama bëgg ñu ni seetaan suivre li may wax maanaam lan moo xew Sénégal ba état bi coowal avion bi il faut nit ñi xam ni ñoom ñoo ko créé maanaam du daa am ko dem wuti ko indi Omar Gueye le 24 moo defar communiqué yónnee ko presse bi mm-hmm. yëgal leen ko pour indi coow. diversion. non may ma rek. diversion la. léegi le 23 lu xewoon Sénégal rassemblement bu ni ca place de l'Obélisque ñuy xeex la ngóor jigéen. mu am ci position bu déranger ñëpp comme euh, deux jours avant lu fa xewoon rassemblement encore sur la crise israélo-palestinienne un peu avant lu xew mooy da euh, la veille toujours mooy nit ñi dajaloo def une journée de prière à Bignona muy ay événements yu bëri yoo xam ne état bi dafa gis mu dajaloo mais surtout bi nga xam si moom moo am le dimanche 23 ponkalu mobilisation à travers nag tout pays département yëpp mobilisé wu gis ngeen ko ci télévision yi ak ak réseaux yi waaw léegi immédiatement le lendemain le le lundi qui est férié jour férié nga xam ministre Omar Gueye waroon na ko fekk këram ñu ne ko gaawal defar communiqué wax ne jënd nañ avion <laughs> liggéeyul de man xaw ma nu mu ko signé parce que le lundi était férié le 23 lañ def rassemblement bi ànd sàmm jikko yi le le lundi était férié ñoom liggéeyul mais Omar Gueye fu mu jaar ba signé ba ba signé ko le te liggéeyul donc problème état ban intérêt la ci am ne ko gaawal le 24 même boo dul liggéey. yow Omar Gueye porte parole du gouvernement gaawal signé yëgal sénégalais yi ni jënd nañ ab avion bu jar soixante milliards waa léegi ma jàpp ni même presse bi nelawal nañ leen xam nga tax ne nelawal leen mooy ñi ngi doon xaar ñëpp le mardi comme lundi jour férié la journaux yëpp tiitre sur les manifestations mais ñu xëy sur les vingt et un quotidiens amul benn rek moo ci titré sur leur rassemblement contre l'homosexualité ñëpp titré l'avion ma ne président Macky Sall la mu bëggoon am na lii la bëggoon mooy def dans la diversion président Macky Sall bu doon ay 60 milliards la ñuy wax mais li mu fi yàq te ci 60 lu ëpp 60 milliards bari na ñoo ngi yore suñ 94 milliards yoo xam ni kañ ko jiñ moom mooy jéemi pexe nangu cee wax biir mbas mi lu mu wax du danañ dajale na 1000 milliards 1000 milliards kan la fi rendre compte ci 1000 milliards yi goroom bi mu dénkoon li nga xam moo ci solo muy jënd mm. nangu la rendre compte nit ñi ci ay ay ay nan la xaalis te loolu moo ëpp moo gën a cher avion bi parce que doon nañu wax lu mu gàtt gàtt soixante huit milliards. te kenn waxu ci. ngeen may wax ay waxu soixante milliards ñoom gouvernement ñoo créé coow li ñoom ñoo génne communiqué pour sénégalais yi di leen ngawte ngawtee parce que coow war nañoo jënd avion war ñu koo jënd moo tax na ci ñoom Sénégal daa dugal ngóor jigéen ci réewam loolu mooy dëgg loolu moo tax man néew ma damay rafetlu li ñu def de mais il faut sénégalais xam ne président Macky Sall lépp lu muy def ci ay intérêt la koy def parce que coowul avion bi moo tane parce que jënd na ko waru ko jënd li mu ko jëlee cher na seerul kooku ci réew yëpp dafay am donc parce que moom mi ngi yàqte suñu xaalis ci ëpp lu ëpp loolu réew boo faloo da ngay jàpp dangay ngay da ngay jàppe sa bopp buur moom sax tudde na boppam mais sa tend joor fii ñëpp ñu ko dégg <laughs> jàppe nit ñi ay dof parce que président Macky Sall xam nga lan lan ci lal la lal nguuram mooy ñun ak ñu ànd ak ñun nañ dund dans l'opulence di guutandaat yéen askan wi dee leen ci ndool loolu moom la lal politique am parce que boo xoolee nan la xel mën a nangoo réew moo xam ni sànq maa ngi joxe benn exemple ay pàcc yu ndaw mën a koo rek quatre-vingt-dix travailleurs bénévoles de l'hydraulique ñu taxaw ne dañ leen a war recruter munu ko santé bi nga xam dëkk yu bari actuellement amuñu gynécologue wala bi nekkee gynécologue ba ñu recruter ko mettre dans la mun ñu ko jox statut bu leer mm-hmm. parce que ay programme yoo xam ne ay ay ay japonais yooyu ñoo ñëw di dimbali mënoo leen a jox statut nga leen di exploiter dans le hôpitaux dans les structures de santé nga jël jàngalekat yoo xam actuellement ñi ngi xaar seeni rappel mënoo leen koo fay mm-hmm. te nga amee leen ko muy bor boo xam ne ay ñi ngi toog fukki at juróom-ñetti at fayoo leen seen xaalis ñuy toog di xaar seen rappel boo ko jël nga koy sàcc di ko xëy doog ñoom ñu leen doon jox ay DMC mu leen di dimbali ñoom ay kër muy juróom millions yoo xam Abdoulaye Wade moo ko fi andi parce que deux millions la PS kenn moom kër dama koy def lu mu gàtt gàtt Abdoulaye Wade dix millions la bëggoon def ci ñi fekk woon waxtaan la ñoom ñu ne ko ñoom ministère des finances ne ko non loolu day bëri mun leen ah en tout ko war a yokk parce deux millions dafa tuuti ñoom technicien ministère des finances proposé ko 5 millions mais au moins mi ngi ko doon fay moom bu 2012 président Macky Sall 2012 bi mu ñëwee ba léegi tuuti la fay daal koy arrêté daal di amatu ko tey nee na l' n' est une banque alors que jàngalekat yu bëri ñu ngi yore seen convention. comme ni ñu ko waxee nit boo ko diggee ba mu yore convention de prêt mu jàpp ne lay dugg day dem mu ko neexee mu dem ci commerçant bu mu wóolu. Mm. ne ko sama convention bi nii léegi jox ma ma tabax eh, jox ma matériaux yi soreetu ma léegi bu ko defee aujourd'hui jàngalekat yi bari ñu ngi ci jafe-jafe président Macky Sall nee na yoonam nekku ci nee na moom dootu ko joxe alors que ñooñu ñu ngi seen convention de prêt mooy lan loo xam boo ko daan jox ci jamonoy Abdoulaye Wade doo toog diir bu gàtt te joxuñu la sa xaalis beneen bi mhm. mooy aujourd'hui il faut ñu xam ñun sunu réew mii li fi xew mënatu la continuer mhm. non loolu il faut président Macky Sall xam ko à travers li muy def nii nag ñun dañoo gis ni état Sénégal li muy def ñàkk a wekk sénégalais yi sénégalais yi nag dañoo war a feri nax dëgg la de yow yaa koy wax sànq pam pamataar gis nga sénégalais yi dañoo war a feri nax ñi nit da ngay gëm sa bopp mun ñu fee toog euh, président bu ñëw jaar suñu kaw def lu ko neex su li président mag Sall def bu subaa mu sëlëm ñu ñu nekk ci leneen bu élection ñëwatee ñu falaat ko ñun yeneen ñaxtu yëpp benn muy sunu askan wii nu bëgg a yàq bëgg fee dugal yëfi caaxaan war nañoo mën a wax fexe ba bu tànn amatee ñu tànn koo xam ne dana jël engagement que dina taxaw xeex loolu. Mhm. te du ci du ci xool ay intérêt ak ay lobby yoo xam ñoom ñoo nekk di ko di ko poussé ci mu def ko. beneen mooy dinañ tànn ñoo xam ne parce que Sénégal yàlla wàccoon na ak ñun mais fi mu toll ñun la des ñu tànn ay ay njiit yu nu yërëm. Mhm. njiit yu nu bëgg. njiit yu bëgg réew mi. d'accord ba alal ji fi nekk parce ñu ngi naan état Sénégal dafa pauvre déedéet. état Sénégal alal a ngi fi. dañ ko appauvrir mais dañu appauvrir l' état Sénégal parce que bu dee réew moo xam si lépp luy sa alal ak xeeti meññeef ak ay ressources ñu ngi koy tëbb di ko jox ñoo xam ne dañ leen di jàppale seen économie. Mhm. comme ni nga ko waxee sànq Macron woo leen di leen dugal ci politique boo xam ne moom moo ci am intérêt te di leen woo ñu naan dañ da leen a woo pour dimbali. Cheikh Amar alors leen a woo. Mm. pour jaar seen kaw. Mm. wan leen ni man mën naa ñëw dox seen kaw jël samay entreprise dugal ko seen i réew. Mm. ngeen jox leen marché yi ñuy tibb alalu réew ma di leen gën a ndóolal ko yóbbu réew moom nag loolu muy def noonu moom président Macky Sall da koo def ci intérim parce que dafa jàpp ne bu nootul Sénégalais yi ndóolal leen ba ku añ uh-huh. doo reer wala boo añee da nga cay tibb reer di gobar jaas yi nga xam ñu ëpp ci ñun mënatuñoo am dara liggéey yëpp yàqu na bu guddee ñëpp ñu ngi jënd ay cere ak ay fonde di ko reere man jàpp naa ni réew mu mel noonu ñoom askan ñoo war a jàpp am fulla xam ni président bii amalut leen njariñ te nag gis nga bëñ buy metti fa laay daanele bañ buy metti bu la sonalee da nga koy jëndi très rapidement sur cette question. Euh, docteur. Wow, euh, sur cette question, euh, j'ai un ami qui s'appelle Ahmed Sahro. Mhm. Il habite à, dans la région de Tamba, département de Goudiri, Gorbounan, Kowar. Mon mon ex du conseil communal de la jeunesse. Nous sommes c'est 13 000 âmes. C'est une commune, 27 000, 27 villages. Dans le poste de santé, nous avons un problème, ambulance. Ah. C'est-à-dire que vous faites ban yoon lañu la war a jëlee pour yóbbu la waa dëkk bi léegi ñoom ñoo dajale di lancer di cotiser lu nit am na yónnee pour ñu am ambulance moment boobu le président jënd avion c'est-à-dire dinaa emprunter. professeur Sam si mais c'est-à-dire Sénégal dans le Sénégal des profondeurs parfois dañuy soxla ay ambulance nga dem déglu tës ñu ne la ndaw si daa waroon a matu ci taxi bi la matoo fa la fa la faatoo. foofu lañ toll dans ces urgences le professeur Sanoussi sa phrase boobu nga naan. balaa ngay suukar lem te soom bi saful c'est-à-dire le décideur dafa am lu ñuy wax mais loolu bàyyi na ko léegi de moom léegi day suukar lem waa léegi le décideur celui qui décide dafay def arbitrage mooy budget boobu mën a am muy gox ak muy état parce que Omar Faye tey bu yoree dépasse li muy njëkk li jënd ndax ci ntàq na balaa muy dem di xool lu noflaayu boppam mm-hmm. parce que man sama problème mooy régime yi fi jaar yëpp Senghor am na avion Abdou Diouf am na avion Abdoulaye am na avion keneen na ñëw am Macky na am avion man sax ne m'intéresse pas mais ci actuellement fi ñu toll nii ci situation bi ñu nekk ci ban contexte est-ce que le moment est opportun. Hmm. ça c'est question parce que me dise que sur les cinq ans. Euh, boroom xam-xam bi jëm ci wàllu koom-koom bu xaymaa ci juróomi at yi ndax Sénégal amoon nañ jafe-jafe koom-koom ndax subvention yi ñu doon def ci yenn yi dañ ko rocci ndax ciment ak fer yokk nañ ko. yokk na. li tax ñu yokk ko yenn taxes yi si carburant mu gën a yokk loolu la. Hmm. man xayma boobu laa beneen xayma bi pour xam niveau de vie bi sénégalais bi di dund cest à suñ ko waxee parfois nga foog dañuy wax pour ngañ mais dañuy wax pour ki nga xam ne mooy dogal te xamul ñu xamal ko li mu xamul woon. li mu xamul mooy wallaahi wal azim damaa toog sama kër magum jëmm ñëw ba foofu bi mu ñëwee di wax man mu ne ma man de aw ma parce que damay fóot benn doom la am maçon la. yenn saa yi mu jàppale mu soo amul chantier mu ne ma démb ñànkatang ak beurre laa defar pour mu am lu ma mën a lekk tey amul sama cin tàqe voilà la misère des sénégalais voilà foofu la góom bi nekk maintenant quand tu es président suñu constitution suñu réew daf la jox ay daraja président du dugg Ndiaga Ndiaye président du auto stop avion président pour kaaraangeem pour sécurité est ce que war na fanaan sax Mermoz loolu yépp nous sommes d' accord mais président bi mu fi yoree oto un oto bi lakk waroon nañ mën ay enquête est-ce que suñu institution suñu président war na dugg ci oto buy tàkk hmm. bi oto bi tàkkee la première chose bi ñu mujjee def dañu dem ñu jëndaat beneen Mercedes Maybach c'est-à-dire y a deux Sénégal su ma koy wax nag parfois ñu gisee ko neneen par ñaar la ñuy jël voilà man ci cag-cag bi laa yéeg kii ci njaganjaay bi lay yéeg ñii ci jakarta bi la ñuy yéeg parce que politique tey hmm. pouvoir tey privilège tey ascension sociale ba et c'est degré de responsabilité j'aime bien rappeler Seydina man parce que pour man euh, euh, njiit nattu la bu ñu la dénkee responsabilité da nga war a tiit nga war a xam ni yow da nga am une lourde responsabilité école bi bu ñu ci dugalee wàllu góor jigéen am nga ci responsabilité réew mi si yàqu am nga ci responsabilité nit ki feebar war a faju amul lu mu fajoo am nga ci responsabilité tey on va me dire que mu ngi defaree hôpital j'applaudis c'est mais en tout cas bu ñuy wax dëgg rek te yàlla tax hôpital dalal jàmm. non suul keer du ko teree feeñ. Ablaye Wade bëgg ko bañ ko. Ah. def na ci réew mi lu ne weng loo xam ni. boo ubbee sa bët non xaaral boo ubbee sa bët gis ko. mais dama lay daam na da wax sa wàll baa ma wax sa wàll. mais loolu dama ko waaw ba jërëjëf ci doole bi li ma doon daaneel rek mooy. nañu mettre l'humain nañu mettre le Sénégalais au cœur de nos politiques. Voilà le bon discours. le DER bi dañ ne 60 milliards. mettre l'humain waxuma ko de 60 milliards. la ñu financé pour mille cinquante jeunes mille cinq cent jeunes milliards la ñu financé pour mille cinquante jeunes kon soixante milliards pour avion présidentiel trouver l'erreur nañ ma wax. en trente secondes Omar Omar Faye en trente secondes. xam nga nee a sànq. Omar sama naa trente a daal bi daa parlé du ko wax. waa Tamba lañ leen doon wax entre guillemets sexualité éducative mais man j'aurais parlé financière. ah ce qui se passe avec la France lan mooy sexualité financière l'homosexualité financière l'homosexualité ma rek. docteur bu bees la de. maman da sexualité bi ay ay affaire am la yor bu développé financier booy seet boo gisee mën a la Ablaye Wade am na def na mu def si réew mi bëri na mooy port. dafa jële français yi qui l'ose le faire. Hmm, les bases militaires. la construction des voitures yi daan jóge France kan la ko jox du ñoom Serigne Mbu. ñu leen il y a combien de milliardaires qui ont été créés. il a créé beaucoup de champs. le foncier qui était là kan moo ko kan avec tous les les les les les les les kits de production. les pistes de production. quand tu vas à le terrain coûtait un million. aujourd'hui si vingt millions tu peux pas à cause favorable dem en Europe et partout taxaw devant les Français di leen wax dëgg. devant FMI et partout ne leen nous nous sommes fiers. kenn mënut ñu jàngal dara. autant l'Afrique d'hier ne c'est plus l'Afrique d'aujourd'hui daa wax na ko. avec les Français. autopont ak pont. c' est avec les Français. non boo limee du nga fi jokkoo. waaw damay damay jox tuuti exemple. yow comment ndox mi téléphone téléphone dama doon woon rek. waaw dama dama doon dama doon waaw dafa bëri. xam nga donc xam nga dafa bëri. waaw attends Saint-Louis dafa ndànk rek dafa ndànk rek fi ma doon wax. en deux mille dix neuf. deux mille dix neuf. bi ñuy jënd avion. on était à huit huit huit mille deux cent milliards de dettes. huit mille deux cent milliards de dette la ñu amoon bañ koy jënd Macky n'osait pas en pleine campagne électorale ne damay jënd avion ñu dugg deux mille vingt ñu nekk ci résilience nekk situation bu difficile dëkk bi metti yëpp teg si coono cest à am na loo xamante ni même boo ko doon def waaw da nga koy rus a def jom d'autant plus que école privée yaa ngi nii au le droit quatorze milliards xaw ma seize milliards hôpital ça trois mois Issa Sall mi nga xamante ni ministre conseil la barki démb xale yi génn dañu war a jox seen diplôme mu ne du ma jox seen diplôme parce que fayuñu ma plan Orsec bii ñu ko liggéeyoon ba léegi fayuñu leen pour du bii ñu fa nekkoon beneen liggéey leen et tant d' autres problèmes qui pays man je pense que état dafay xam priorité ñu mën a xool priorité yi xam ne lii mooy priorité yi ñu def ko ñun nag dañu am ñu xamante ni ne malheureusement xamuñu luy priorité te loolu fi mu ñu jëmee si kanam dafay gën a metti d'accord dafay gën a metti donc maintenant lii nag nga xamante nii ne moo si am solo jën yokku na mm-hmm. actuellement diwlin euh, kii nu mu tudd. kilo yàpp kilo yàpp kilo yàpp mi ngi 4000. mi ngi 4000 francs mi ngi 4000 francs. actuellement ci réew mën na Sénégal. yàpp bu am yàq la 100 produits pharmaceutiques xoolal. téeméeri produit waaw xaaral fa laa jëm ni. syndicat du maintenant même produit pharmaceutique yi. <laughs> téeméeri produit yi nga xamante ni ne ñu nee na lekkatuñu naantuñu ñu ngi ñu ngi nekk ay ñu ñëpp ay yoo lañ. <laughs> nga xam ne produit pharmaceutique yi moo ñu daan dimbal yi nga xamante ni ne. mooy complément alimentaire yi. pour nga di ko utiliser léegi dañ ko taxé. waaw téeméeri produit lañ lañ listé yoo xam ne dañu passé de cinquante à cent pour cent d' augmentation illégale. effectivement violant l' deux 2003 15 juin 2003 bi nga xam ni l'arrêté 118 du 15 juin 2003 nga xam ne moom moo limité woon loolu ba noppi réglementé ko ñu dem violé ko def leen ne mhm. sans produit ñoom médecins yi nee nañ les les pharmaciens nee nañ day day dafa nar a dem 500 produits actuellement yoo xam ne sénégalais ñoo xam ko ku ci feebar garab gu daan jar junni day jar léegi ñaari junni wala ñetti junni foofu lañ jëm ku fi feebar da ngay dee. alors daanelal Omar Matar wax sànq 300 milliards yu ñu waxoon dañ ko jënd pour ay oto. loolu situation boobu lañ nar a dundal. mu ne day indi restriction parce que parce que aussi il faut les prendre au moom moo def 2019 ne restriction lay def. waaw ne ko jënd. Mhm. carburant bi dinaa ko xoolaat. Euh, euh, euh, kii le coût le coût téléphonique tout ça je vais revoir. rationalisation des mais yow rationaliser la dem jëndi dem indi avion. dëgg yàlla moom kay daf doon yàqal boobu xam nga xam nga yooyu c'est des choses yoo xamante ni ne yow boo waxee. boo waxee sa askan ba pare boo waxee sa askan ba pare. ba ñin ne ah kii kat. waa bi mu nar a nii. baax <laughs> na nga ñëw ci en pleine résilience. où tous les pays actuellement. boo demee États-Unis deux mille milliards de dollars lañ génne. nga dem Europe pareil ku nekk yaay xool noo génne sa pays sa situation. nga ne non man je préfère acheter un avion. xaw ma kan man xam naa ne man man xam naa ne man moom oto oto bu rafet. achat bi moo oto bu rafet moom ma ki bëgg na ko. <laughs> d' accord alors oto <laughs> <laughs> a bu rafet. na bu fi dagg temps bi de. non non dagg temps bi de. Omar Faye naan bu fi dagg temps bi une heure. am. aussi philosophe bi ci avion na nee na nee na nee na non non moom moom temps de parole am nee na. nee na bu doon temps Macky Sall. mais xaritu Aliou nangul wax ci avion Macky nu mu demee noonu. ah déet mais toog ci plateau bi tamit pour commenter la mais doo toog ci plateau ba noppi naan doo commenter. ba xaar beneen tur wax. non non non dañuy dañuy mais non mais mais bàyyi ma wax. nee na Isaac distribué la parole quoi. non non man bàyyil ma wax la man xam nga li may wax xam nga man li may wax wax naa ko bu yàgg man je ne suis pas prisonnier d'une analyse circonstancielle. Mm-hmm. man nekkuma ci yooyu. dama ni lii il y a de il y a ciel. Mhm. bi Sénégal di Sénégal ba tey ki wax nga ko ñoom ñëpp yàq suñu alal lañ fi nekkee Macky sàll li muy def dafa fekk Abdoulaye Wade daan ko def. fekk Senghor daan ko de fekk Abdou Diouf di ko def mooy suukar lem te soom bi saxul. mais rupture du ma ko nangu. ko nangu. loolu tamit bi ñu fi ma ma pare de bàyyiwu leen ma bàyyiwu leen ma. on pare de. rupture

yow ak Ablaye Wade. yow yow fii. loolu moom jarul ak ay maletam yow wax nga ko. may wax may ma rek Omar Faye ma yeggali bu fekkee mun naa am parole sinon ma bàyyi la parole bi nga wax waaw. mais bu ma gisee lu dëgg tamit dama koy waxaat. voilà léegi. bu fekkee léegi wa yow. waa léegi. waaw kay. waaw waaw bëgg loolu. yàlla sax dafa bëgg.

di analyser ak passion nekk ci ay circonstances la sa waay di wax contexte moo tax dangay ngay dëkku ci rëccu ay rupture man je n'attends de Macky Sall aucune rupture parce que Macky Sall n'a jamais évolué dans un pays ou dans un gouvernement où il y a rupture Macky Sall ki wax na ko léegi n'est pas en France de pays d'un peuple qui a une mentalité de rupture wan leen ma ci àddina bi bi mu sosoo ba tey yéen ñi jàngi woon dem États-Unis dem Amérique liir kayit yi ban pays au c'est un homme qui a fait une rupture la rupture kii li ko wax léegi ça se fait avec le peuple mm-hmm. et ce peuple là on l'a endormi xam nga man dafa am loo xam ne nii xajul ci suma mentalité mm-hmm. du ma toog di rëccu li bon li amoon démb parce que le pire dafa am tey. Mhm. non man loolu duma ko def te mënuma ko comprendre man je fais partie de ceux qui pensent que depuis les indépendances on n'a jamais eu un président comme ni ko kii waxee donc dafa mos taxaw ne man mon but c'est de sortir le Sénégal de la pauvreté parce que loolu ku koy def doo indi népotisme mhm. le PDS était le parti le plus népotiste du monde ñoom ñoo taxaw wax fi ne bu ñu jëlee pouvoir bi ñu yóbbu ñu kaso on a may ma may eggali rek. no non non non je te permets bàyyi leen ma rek ma eggali man damay analyser xam nga Omar dafa am loo xam ne dama la ko bëgg wax en direct nga dégg. y a des choses que je te permets pas loolu pour mu leer man su may analyse la su may position la. am nga say position yaa ngi ci dëkk bi di wax li ngay wax kenn terewu la ko. yaa ngi yore sa lampe wala sa sondeel di leeral sa askan. leeralal bàyyi man tamit man ma leeral li may leer samay analyse la man ci ay fee laa nekk ma ci. waxal waxoo waxoo fee. président Macky Sall tu fais de la littérature. le président waaw d'accord parce que littérature laa jàng. waaw au moins kenn xamul loo jàng. au moins parole bu ni lay. non koy wax mu noppi ma bàyyi ma développé parce que ma dama leen bàyyi ñu développer li ma bëgg a wax nag dama koy wax. naa déplaise à qui que ce soit man. aw ma conscience de la faute aw ma conscience de la dette depuis que je suis Sanoussi je me suis jamais photographié avec un président je n'ai jamais été reçu par un président je n'ai jamais été dans aucun complot ni aucune défaite d'aucun président j'ai toujours été un citoyen qui regarde bu voté moo voté moo tax damay libre devant les Sénégalais parce que du ma am compromis suma conscience Macky Sall mënuma xaar ci moom rupture parce que Macky Sall il n'est pas un homme mm-hmm. gis nga mieux gis nga affaire yu yi ñuy wax comme kii li mu koy analyser gis nga dañu dox ci suñuy mentalité